Euh, Maymuna Sénégal dañoo toog xëy suba ñëpp dégg ni agressé nañu euh, muy lu métti ñu génne nataal bu méttee métti boo xam ni dañ ko gis deret wër na question bi nga lay njëkk laaj lan moo tax yow jigéen kott te merci beaucoup euh, Yérim euh, ñu euh, préciser que dañoo xaw a xoolaat le format de de l'émission euh, parce que après tout ce qui s'est passé euh, ba ma waxtaanee ñu bari ñoo xam ne dañ may xelal Euh, dañ ma ne carrément euh, am na explication yoo xam ne euh, war nga ko jox les sénégalais balaa ngay passer à autre chose dañ nekk ci contexte campagne électorale mu nekk élection boo xam ne maa ngi koy préparer à vos côtés yéen suñu téléspectateurs depuis un an avec di def des émissions sans relâche euh, la fréquence de l'invité de MNF euh, est passée de, de, de, une fois par semaine à presque euh, cinq à sept fois par parfois euh, par semaine euh, et donc mënuñu ma toog yàlla su ma mayee tuuti kàttan ma toog ma manqué euh, lii nga xam ne lu am solo la ci suñu ëllëgu réew alors ma buggoon nag reprendre li nga xam ne moom mooy sama émission ndax suñu borom may na ma euh, kattan bi mais on m'a conseillé euh, am na loo xam ne war naa ko expliquer balaa may mën a jàll ci beneen cap euh, te explication yooyu sax dina di ngeen ko soxla yéen mais dina baax ci man Yérim donc loolu muy la première précision que je voudrais fair mais balaa may tontu ci sa question devoir la ci man obligation la balaa may def quoi que ce soit ma remercier euh, l'ensemble des Sénégalais l'ensemble du peuple sénégalais euh, ak fu ñu mënta bokk tout euh, tout métier confondu euh, toutes les catégories socio-professionnelles confondues sénégalais bu nekk dama koy remercier di leen jaajëfal ci soutien ak bi nga xam ne wan nañ ma ko affection bi nga xam ne wan nañ ma ko boo nekkee ci réew nga nekk ci guddi gu bërsekul am ay gàllankoor ñi nga xam ne ñoom ñooy sa waa askan euh, am nuñ la témoigner loolu daf lay jox doole daf lay yokk jom euh, daf lay jox force pour que nga mën a ñëwaat toog ñu bari dañ ma doon ñaanal ma ñëwaat mën a toog fii wéyal sama sama sama sama liggéey gaa sama convalescence jeexul mais je suis obligée par devoir euh, par amour pour mon métier Euh, par solidarité pour ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéeykatu 7TV yi bu ma yàlla mayee tuuti kàttan ma ñëw toog euh, et puis une élection présidentielle euh, c'est tous les cinq ans c'est une grosse page d'histoire euh, qui s'écrit euh, journaliste benn ñaanul yàlla euh, wute ko da nga koy bëgg a dund suñu borom nag suturaal na ma même bu fekkee ne pertenant une partie de cette de cet événement historique Euh, yàlla may ñu kàttan euh, may ñu doole ñu mën a fekkee li nga xam ne euh, moom mooy le tournant de cette de cette élection donc may remercier et du fond du cœur vraiment moo bu ma bëgg utiliser dafay dafay dafay ndaw ci man du fond du cœur ñi nga xam ne ñoom ñooy les sénégalais di remercier tamit du fond du cœur balaa may xuus ci waxtaan bi le corps médical de l'hôpital militaire de loolu d'accord loolu dinañ ci ndax euh, niñ la toppatoowee ak yëpp dinañ ci euh, may mu ne guddi ñu toll ndax nga mel ci sa nga dina ci euh, damay je bien Euh, je me sens bien par rapport rek guddi yële ma tolloon euh, dama je me sens bien maa ngi sant yàlla je me je me remets euh, yaram bi sawarul nu mu daan sawaree yaram bi neexul na mu daan neexee da ngay jékkee-jékki Euh, parfois voilà tu te sens très bien parfois tu te sens bien parfois tu te sens euh, bien c'est normal et puis boo subiree choc bi ma subir au fur et à mesure des jour dafay am yeneen affaire euh, yu yaa xam ne parfois da koy yëg mais lépp tout et pris en tout est pris en charge euh, bu ma nekkee ku gëm suñu borom bu ma nekkee ku optimiste damay ne je me sens bien alhamdulilah